maa les deux Moustapha Ba ak sa cabinet aussi le ministre chargé des institutions yow nak Sow monsieur Sarr Farid Diop mi jam ndeer yow ki lay mu le président Wade ma monsieur le ministre dañ dama lire ci rapport bi ñu né balé balé juma ku tabaxul do balé jàppal ci tabax du bax ñu tabax ñu tabax juma yi c'est important ma wax ne s'agissant ci nettoiement marché zinc bu Pikine marché zinc bu l'imam lay Ndiarème Sam Notaire marché Gueule tapé ba ci Castor ñu ngi lay xaar ak sa mbolo kan moy Mass Thiam ah Sarr laa la sant la ñëpp la gërëm kon dama lay gërëm parce que nag bu dëgg dee dëgg rek man fi ma dëkk Géejawaay sama buntu kër dañ koy bale barke sëñ Fall du ma wax caaxaan liggéey bi rafet na lool lool lool lool waaye kii nag jar naa dooleel de parce que nag agent war naa am gan agent war naa am bot agent war naa am masque ndax li ñuy laal muy mbali kon nag maa ngi la koy dénk budget bu baax affaire lo kii location yéen li ci nekk sax da ngeen koo xamul parce que courtier bi dañuy laaj bu la wëralee kër ba nga gis ko day laaj ñetti avance benn avance bi courtier boo moo ko moom yow nga fekk këru jàmbur wut nit rek dugal ko ca ñu jox avance bu dee un million ngay joxe 3 millions ñoom ñoo moom 1 million bi xam ma yëg ngeen loolu wala yëgu leen ko bande filaaw bi waxoon naa ci waxoo ci soo rombee way man nee naa la maa ngi dëkk ci gannaaw filaawo yëpp dagg nañ ko def ko ay kër di ko tabax ndax yëg nga ko dem fa nag seet ko bul toog ci bi rek ñu di la jay ngay jay yaqu da ngay génn dem seet ko parce que foofu yëpp def nañ ko ay kër di ko tabax ma wax ni am nañu kaas fii pour pourquoi duñ jël liggéeyu réew mi jox ko waa réew mi waaw juddoo ci réew mi yaroo ci réew mi màgg ci réew mi man la tubaab ba man yéen seen sar xolle day topp néew bàyyi seet dimbali leen sénégalais yi sénégalais bu ngeen fi jox liggéey da ciy lekk ay bokkam lekk ci ay xaritam lekk ci ngir yàlla mu suqali réew mi su ngeen bëggee suqaliku waaye yéen daal da ngeen am faiblesse su nit ku weex war ngeen ko bàyyi nag ma waxati ni ah xam naa sax du xaw a neex yow ba kenn du la wax dara mokkal nga sa métier kariwaat bu ñëwee da ngay toog yaag sa cabinet du ngeen buuse moom mi sax dañ koy rus ndax ñun ci ñun la bokk waaye dama ni yow day yar laa xam ci yow xam nga ma xam naa la sa yaay laa yar laa xam ci yow teggin laa xam ci yow yow nag wax dëgg yàlla li Ablaye Wade di jàngale yaa ngi ci waaye Samba kooki mare mm. xawoon naa def nii sax waaye jey nañ ba mu ne cher collègue <laughs> yow fi kuy wax da koy mu wax ba man doo ma bàyyi assemblée bi ko ba euh, la suivante